dañuy doore suñu wax ci benn mbir boo xam ne foog ñu évacuer ko comment se fait-il qu'au Sénégal sortir manifester devient un suicide sortir manifester devient un suicide au Sénégal lu ñu taal bëgguñu kenn taal lu ñu toj bëgguñu kenn toj waaye lu ñu taal nit a ko defar mën na ko defaraat lu ñu toj nit moo ko defar mën na ko defaraat bëgguñu yëfu kenn yàqu waaye ku sa yëf yàqu yaa ko liggéeyoon mën nga ko defaraat te yàlla na la yàlla may kàttan ak xewal goo ko am ba nga am lu ko sut mais du ñu wax essentiel bi bakkan yiy rot ñu naan yàq na noog taal nañu nañu wax bakkan yiy rot xale yi génn seen projet la ñu bëgg nasaxal ñu taxaw ci di ko kaas te loolu xale bu am jom yaa ngi ca biir nanu wax ñi leen di rey ñan la ñu ni c'est des nervis ou c'est des gens qui sont avec les manifestants man manifestant maa ànd ak ñiy reyaate rey ñun ñu nu janool te yàlla bu kenn dee waaye ñun ñu ànd ak ñoom lañu rey kon ñun ñi ànd ak ñoom lañu ñu rey te ñun ñoo ànd ak ñoom Sénégal li ko tas fi mu ne nii nekkul yi ñuy toj nekkul yi ñuy lakk mais li ko toj mooy kilifa yi war a jubbante réew mi war a mën a toog wax dëgg alal tax ñu toog ci télévision bi di wax li ci gannaaw dëgg seetuñu ci yàlla seetuñu seen njaboot seetuñu ci kenn nanu delloo su wax ji ñii di rey xale yi nanu xool ñan la te na leen jàpp am na nag ñu wax Wolof nee na ku wax feeñ ñii nee nañu c'est des volontaires yoo xam ne dañ ñëw pour jàppale APR des volontaires que l'on paye des volontaires ak yoo gi nuy def ci biir oto armé jox leen dafa am benn xale boo xam ne foog ma cité ko waxam dafa laaj jàngat bi ñuy wax nervi ba agsi ci moom dafa ne nervi yi xawma lu ngeen takk waaye am ngeen chance la ngeen takk ba police bi ngeen derdal sax mënu leen gis bés bu ngeen ko teggee bu leen police jàppee di ngeen sonn waxin la loolu dañ ko doon introduire rek pour wax ñiy wax kenn génnewuloo kenn xale yi ñoo génn di defan seen projet gis nañu fii yi am ci pays européen fii bëgguma tudd dëkk ba ñu gaañ ci lu mat huit cent policiers déggoo kenn ku dee te toj nañu yàq nañu bëgguñu kenn toj bëgguñu kenn yàq waaye loolu du prétexte lu ay di njàmbat madame Aïda Ndiaye ñëw na ci historique boobu ba ñu yegg si fii nañu wax ci li jàmp tey lu xew nit dem na Ziguinchor dëkkam moo fa nekk maire te moom sax ndogal yàlla daf ko dal bu toogee Dakar ñun dafa yëpp waa Ziguinchor seen maire la waaye fii lay toog Dakar di lambar lambar yi bu demee na ñun dafa daw làqu bu demee Ziguinchor ñun dafa daw Dakar làqu ci Ziguinchor lu ci mënt ay toog na fa liggéey la mu yëgee un temps ba waxtu jot mu ni damay ñibbi. damay dem dakaar fii laay jaar fu mu dem nit ñi toog di ko xaar looloo xëtt xolu ñi koy gund xataal parce que jamono jooju ñoom si seen bopp ñu ngiy doxantu ji di taxawaalu kenn faalawu leen pour bañ a guddal ñu ni ko coppet Sénégal jaaxle ñu sànni ko këram ma interpellé le ministre de l'intérieur mu gaawantu génn RTS ni noo kenn arrêté wu ko dañ ko gunge yóbbu ko këram koo arrêté wul bëgg ko force yóbbu këram loo visité saagam loo nangoo li nekk ci saagam loo nangoo ay armam wala sax boo ko jëlee parce que ci oto la nekk boo xam ni oto armée la xëy na waru fa yor kii waaye buy wàcc nga wàccee koy bagage nga confisquer ay bagage sàcc la c'est du vol parce que amuñu fuñ ko teg te li ca gën a metti mooy balay loolu lañu jël ci moom fes ci réseaux sociaux yi mooy am la lu nar waaye loolu yëpp wees na lañ ca war a wax na ko lañ ca war a dox dox nañ ko nga ni kenn arrêté wu ko yóbbu ko këram nga bari barricade këram du génn jabaram du génn doomam du génn mindaan kenn du génn kenn du fa dugg ba ci ay avocat am sax duñu dugg ci biir kër gi ñun magi Pastef tenté nañu ñetti yoon ñu dañuy seeti Ousmane Sonko waxtaan ak moom sur la situation suñu demee fekk fa barrage police benn tontu lañu am nous avons reçu des instructions waaw léegi nag man ki joxe instruction yooyu parce que xam ñëpp xam na ni benn juge arrêté wul situation boobu. ki joxe instruction boobu lan la bëgg ak fan la ñu bëgg yóbbu parce que xam na ni lii du du continuer à un certain moment il va falloir qu'on réagisse mais li tax mu def ko lam ca juglu na am fu la wax ko mais séquestré Ousmane mu continuer du am fam nu bëgg yóbbu nag mbir mii dafay añ ci nii mbaa mu dañ ci nii muñ nañ ko ça fait quinze jours et ça suffit tey jii am nañu xibaar bu ñu force ci wéewu bay ki daan dem di def transaction yi sax pour indi euh, kii ci kër ga daan dugg bi dégg naa arrêté nañ ko depuis démb mënutul accéder ci kër gi trop c'est trop fan la nu bëgg yóbbu ku ci mën a wax na ci wax tey ku ci bëgg jàmm na ci wax tey te wax ji yëpp benn nit la koy waxal moo ko yor moo ko mën a def muy le président Macky Sall su ko neexoon tey mu dañ tey ayuñu xeexuñu tojuñu lakkunu rayuñu nous ne demandons qu'une seule chose que Ousmane rentre dans ses droits de citoyen li ñu mën a wax réew mi réew maa ngi yàqu ndegam yàquwul sax ba pare il faudrait que ñu taxaw conscientiser wu sur une chose man dama ragal ni ñii dafa am lu ñu bëgg boole waa Pastef en général Ousmane Sonko en particulier ak le peuple sénégalais parce que bu ñu ko séquestré 15 jours ñu wax ba tàyyi amul tey ravitaillement ko ko doon jëli sax ñu bloqué ko mooy réagir leen pour que bu ñu réagiree tabaski bi jaxasoo ñu bool nag peuple bi ma bëgg nii ñun mag ñi. dañuy toog fii di gis lu gone dul gis lii na takk te na takk tey li leen tiital nag mooy xale bu ndaw bu ñëw bii ba aéroport ñu taxañ ko delloo ko ci ci jëf ci ñaaw mu xarañ xam liggéeyam dugg am nu mu waxanteek ñoom ba ñoom ñépp fem nañ ngeen baal ma waxin bi kenn ku ci nekk sa toogukaay nga tàng jër jàmm lañuy wut jàmm la ñu bëgg nañu lever lii nu mu gën a gaawee suñ ko levewul ñun daanu wut pexe xaw ma nag ban waaye daanu wut pexe parce que du wéy te nag dafa am loo xam ni sax dafa rafetul xale bii di jàngi doomu Ousmane Sonko su demee à l'école ñu koy palper ba xale yi réagir ni dootum def seen examen pourquoi ñu koy pañ pour lan pourquoi traumatiser cet enfant là xanaa ñoom amuñu ay doom ça ne suffit plus de le persécuter ça ne plus de le mettre en quarantaine maintenant il faut s'attaquer à sa famille à ses petits à ses enfants en fait vous de la presse à une occasion posez-leur la question à savoir ñoom lañ la ñu bëgg lan la ñu bëgg am na loo xam ne duñ fa yegg ci wax am na loo xam duñ fa yegg ci wax jàmm kese lañu bëgg te jàmm ji mi ngi commencé ci nu bàyyi jàmbur may ko jàmbur ñun nag duñu juriste Ousmane sonk keroog bi mu jëkkee génn sur l'affaire Adji Sarr Macky Sall dafa toog explique lu leer wax un complot ñaari chef d'accusation moo ci amoon viol et menace de mort moom la ñu enquêté moom la ñu instruire réquisitoire pour procureur bi ko yóbbu chambre criminelle moom la génnee procès du premier mot au dernier mot on n'a pas parlé de corruption de jeunesse. un procureur qui fait benn réquisitoire di wax ay conditions si comme disait le philosophe avec un si moi yëpp peux reconstruire un autre monde ñu bëgg rek ñu delloo ci xel yi dal te tey te wax Macky Sall ak régime am fii ñu jëm du foofu nii ñuy doxale du noonu nañu bàyyi jàmbur alors qu'il est temps sës nañu ñu ngi ci miir wis bi mais kenn dunu ci bopp reculer nañu ba sës nañu ba ci mi ñu ci miir wis bi kenn duñu ci bopp ñun nag ay mag lañu Sénégal dafa am foo xam du fa tolloo dafa am ñu yàlla may seen kàddu suut kàddu yépp muy xalif généraux yi ku ko ci yëgul woon yëg nga ko tey ku ko ci xamul woon xam nga ko tey magi Pastef nee nañu jël nañu les choses en main ñoom nañ ci wax laajuñu ñu kunu faral dañu laaj kese yoon dox li mu war a dox ñoom lañuy ñaan ñu wax ak ki ñu war a waxal ku àttuwul di nga àtt yàgg nañ ko wax ñun nag magi Pastef fii devant vous ñu ngi relever sunu engagement total et sans faille ci président Ousmane Sonko ci parti euh, Pastef ak instance am yépp di ko wax ni suñu waxu démb mooy suñu waxu tey te incha allah bi mooy nekk suñu waxi suba engagement sans faille te suñu rôle dinañ ko dox ba mu mat am na nag lépp kenn mënu ko wax tey suñu rakk yi nekk ci prison bi bu ne dañu nemmeeku tuur ñu ni lu Keita mooy cerveau bi pour un rien du tout ñu jàpp dugal ci kaso bi ça fait ba léegi bu ne wër ndombo ñu ni diw mooy responsable jàpp dugal ci kaso bi bu ne Kopar Express ñu jël xale bi dugal ci kaso bi lépp ñuy muñ mais nag sës nañu nous demandons à ces autorités du pays ñoom ñi yor kàdd gi te mu dese leen juróom-ñetti weer encore xaw ma juróom-benn weer nañu dal te dalal nañu lever le bouclier bi am ci kër Ousmane Sonko Ousmane Sonko. du tabaski ci condition yi du tabaski ci condition yi de la na xel a koy mottali ñu ngi sant ñëpp xol fees na ba wax ji sax doo xam noo koy waxee li ñu ci mën a wax rek vous devant la presse seedewaat leen ko mooy jàmm la bëgg ma delloowaat sama wax jàmm ñaari nit la koy dox dangay jël li nga moom lépp te sañ ko jël bàyyeeg nit li mu moom lépp jàmm am jël li nga moom tere keneen li mu moom jàmm du fa am yàlla yàlla def jàmm Sénégal yàlla yàlla def tawféex Sénégal xale yii de kenn yéenewu leen ko yal na leen yàlla yërëm jéggal leen tere teral leen xaaral leen ci àjjana yi gën a kawe waaye sunu payoor ak ñoom mooy lii ñu doon xeex pour jële fi ce mauvais système là que du ñu flancher ilaa yawmi diin on le réussira pour eux deuxième képp koo xam ni yëkkati nga fetal ni ko tuy ci xalal mu daanu tôt ou tard tu payeras dans ce pays-là incha allah wala droit bu soobee yàlla dina la ko defal xale yi tëdd gaañu euh, damay raconter une anecdote ñaar sax pour ñoom ñu xam détermination xalelu Sénégal je ne dis pas xalelu Pastef xalelu Sénégal keroog ba ñu demee hôpital di leen seeti. boo dugg ci si salle bi ñu ni magi Pastef yegg seen xale bi ni bërëg toog sa première question mooy ana président mbaa il va bien xale bi toog ñu band tànk bi aj ko boo dugg seen nuyu ko ah doyee àll doyee kii ah mais alhamdulilah mais ana président mbaa il va bien mbaa li ñuy wax dëgg mbaa mi ngi la ok loolu mooy benn ñaareel ba mooy tey un nommé Ndiaksar. Il est le coordinateur du, de la commune de Louga. ñu ngi ko arrêté semaine passée jour bi ñu ko arrêté jabaram am doom il doit être devant le procureur aujourd'hui tey la ngénte li mu jël doom ji tudde ko Ousmane Sonko kooku mën nga génnee li mu gëm ci moom ñoom la ñu gëm li ñu gëm c'est piller le pays et se remplir les poches mais nañ ñu bàyyeeg li ñu gëm mooy récupérer na suñu pays defaraat ko ñoo aye dese leen ay quelques mois nan ko doxal te dem pour jeexal moo waxaat ni réew mi ñaari problème la am buñ ko résoudre Sénégal jëm kanam benn bi mooy Macky Sall def ci xelam ni du bokk te incha allah du bokk ñaareel bi mu xam ni Ousmane Sonko bi defu ko wax ko dafa war a bokk te Ousmane Sonko dina bokk su Macky bokkul Ousmane Sonko bokk Sénégal dem kanam Ousmane Sonko dina bokk et gagnera les élections au premier tour su élection yi commencé à huit heures balay onze heures mu jeex dans un an ñu defar suñu pays ñu defaraat suñu dëkk ba mu rafet toogaat fii di ko waxtaan bëgguma gudd lool ñu ngi jaale nag ñu ñàkk seen doom di am yëg-yëg boo xam ni xëy na ñoom duñ ko xam si ñun ñoom dañuy am yëg-yëgu ñàkk seen doom ñun ñu am yëg-yëgu ñàkk suñu doom bu ñu bokk ak ñoom waaye am yëg-yëgu yërëm leen ñoom it yàlla leen dëddoog jàmm yàlla na leen yàlla teg loxo ba dara dara du leen faagaagal ñi gaañ yàlla nu tane jàmm dellusiwaat déwén ci waxtu wi dana fekk élection présidentielle passée yéen journalistes yi yàlla boo leen nu tal ñun yàlla bul leen tal yàlla na fekk ngeen di daw ci ministère yi di couvrir les bonnes performances. ñun nag ñooy magu Pastef ñu nekk nag. kii di mag di sages macha allah ñu yàgg ànd Ousmane Sonko mu nit ku baax ñu koy nuyu di ko sargal di ko renouveler suñu attachement muy un attachement indéfectible Ousmane li ñuy mag yépp bu bëggoon ay biddéew ñun mag ñi dañuy fanaanee tëb ndax day nit ku baax nit ku jub nit ku constant ñu ànd ak moom nag ci ngor waxu démbam ak waxu daawam ak waxu tayam nekk benn àdduna nag buy dox loo ci gis rekk dafa am lu ko yëngal te lu ko yëngal moo ko ëpp doole ñuy ay jigéen man may wax ci baatu jigéen ñi il est vrai que ci bureau national bi maa ci jiit maa topp ci président bi mais dama far ak jigéen ñi ba xam ne toujours dama naan damay waxal jigéen ñi ñu nekk ci situation bu compliqué nag li ko compliqué loo mooy gis dëgg rek bañ ko wax loo gis rek am na am na soog am na am na am na lu ko waral ñu àdduna di dox di dox ba ñu dajeek soxla su tudd Adji Raby muy sénégalaise am ay droits que nous reconnaissons et que nous acceptons également mu am droit am lu ko naqari ma a porter plainte waaye mu porter plainte koo xam ne nag day sunu nit te yaar a tabu de ñu ànd moom dañu sol sunu dàll nii ñu toogee fii tey ànd ak mbooloo mi yépp dem toog ak moom jàkkaarlook moom wax ak moom wax jëm ñu waxoon février deux mille vingt deux mille vingt et un ba tey jii changé wu ci benn yoota te l'histoire lui a donné raison kon ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ñu am jaaxle nag ndax nag lu xew Sénégal dañu war a poser wu question ne lan moo xew Sénégal xanaa du du porter plainte tribunal joxe lam ca war a joxe lam ca war a joxe bu fekkoon lépp dafa tegu ci ni mu war a demee rek benn problème du am ndax ñun dañu foo yóbbu ci ñaari mbir viol ak euh, menace de mort ñaar yëpp tribunal tegal teggil nañu ko ñu indi loo xam ne nag Socrate lañ ko fi tegoon il huit a 800 ans magistrat yi seen bopp sax bañ ko dégg ñu ci bari dañu doon gëstu ji ndax mosuñoo dégg boobu mu ñi ñu dendaloon ci tribunal bi yëpp dañ doon laajte lan moo xew loolu xew nag indi fi li xew ba nga xamee ne ñun en tant que yaay dañu ne dañu bëgg a jóg nag seet nag li nga xam ne xew na Sénégal ñaaw na nos enfants là qu'on tue à balles ndax nag bal ku ngay xeexal mu yore xeer boo yoree bal du légitime défense ñu xool suñu doom yi ñun en tant que mère te toute femme qui a vécu la cadence de l'enfantement ñu gën ko wax nag ci wolof mooy matu soo gisee xale tëdd nii ñii këdd ñii di jël koros ci bopp ba xale seet dugg ci sa loxo nga diri ça nous fait ñun ñëpp suñu yaram day daw ndax jureel moo metti gis nga bébé boo ko xoolee ci lal muy tëb ak dal tëb dal boobu muy tël tëb di dal ci lal moom lay tëbee ci biiru yaayam pendant neuf mois les trois premiers mois rek la naan teg li ci topp yëpp day tëb ak dal tëb dal boobu nag sa doom di ko def ak yow mooy indi seen rapprochement pendant neuf mois juróom-ñeenti weer ba ñëw nga accouché ko yar ba mu am vingt cinq ans génn ñëw rek ñu ne dóor nañu bal ci bopp ba la ci dënn ba ñu recensé 24 morts yoo xam ne identifiés par balle réelle 4 non identi non ak ñeneen ñoo xam ne sax nee nañ somme bi ëpp na ko nombre bi ëpp na ko loolu moo tax nag ñu jug tey nag di wax ak yeeg ji nag ak jigéen ñi nga xam ne dañoo jur seeni doom gis nga décision yi bari yi ñuy jël fii ci senegal góor ñi ñoo koy jël kon nag jigéen ñi war nañu jóg taxaw ndax yee à côté de chaque grand homme yaa a une ñu remettre leen nag faire les revenir à la raison wax leen lii ñaaw na lii rafetul suñuy doom la ñuy rey des deux côtés nag même bu ñu deyee ci les hommes de tenue suñuy doom lañu le Sénégal est un et indivisible benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar moo taxoon ma faa woon Senghor qui disait il est pour le régionalisme mais non pour l'ethnicisme léegi loolu la xew fi Sénégal ñu bëgg loolu gàtt ñu bëgg yooyu jóge fi ñu bëgg suñu doom yi dee ñu leen di rey ñu arrêté ko góor ñi xamuñu matu waaye xam nañu am difficulté fois yoo xamee ne dina xaw a nuroog matu kon nag war nañ ñu comprendre xam ne suñu doom ñuy rey daf ñoo metti président Ousmane Sonko li ñu ko teg mu tegoo ko ça prouve que deux ans ngi nii les débats de télévision mooy xorom si ku ko tudd rek doo am maanaa ku bëgg am maanaa Sénégal si il faut nga tudd Ousmane Sonko notre président wax ci moom ay wax yoo kenn xamul. te kenn mësul jóg ne li ñu koy wax normal mu di muñ rek waaye moom bu waxee benn rek ñu bëgg indi loolu ne tey la àdduna di tukki pourtant ci jub rek la nekk ci dëgg rek la nekk dóor nañ ko ci mbedd ga toj nañ otoom gazé nañ ko sotti dañ ko ay ndox mais mësul binni te ñun sax daf ñuy tere binni daf ñu naan dañu nañu muñ lu ñëw dañ ko tegee nañu nañu sàlloo alhamdulilahi ala ak alhamdulilahi bi nax mi tey moom rek la ñu sant ñu nekk ci loolu ñu bëgg nag woo Sénégal yëpp ibbi seen bët wan leen ne ñun dañu sonn suñuy doom sonn te dañu bëgg mu arrêté suñu étudiants yi dañoo bëgg ñu mën a jàng ñu may leen seen jàmm génne leen ci prison yi plus de cinq cent et quelques personnes nekk ci prison yi jaaduwul suñu leader nag ñun dañu jaaxle tëj ko këram privé ko de ses de ses de ses mënul dem mënul dikk te deguñu ko fenn y a aucun document juridique bu wax ne war nañ ko def lii ñu ne nag nañu woote nag wax ak nit ñi nag wax jot na ba ñu waree wax sax yàgg na mais comme ñun ay mag lañu dañuy bëgg nag léeg ñu ne tekk rek di di seet ni ñuy maslaa àdduna waaye nag lu ëpp tuuru moo tax ñu ne dañuy woo journaliste yi wax ak waa Sénégal wax leen ne dañu nekk ci loo xam ne daal bëgg na ñoom ñëpp ñu ibbi seen bët nag jéem a xam nag nu ñu war a doxalee ci lii. te bu ñu jëlalee Ousmane ni ñu ko tëjee tëj waa ay dëkkandoom. tëj ay ay voisins mënuñu dem mënuñu dikk ñu nekk en période de tabaski ay soxnaam tey qui ont beaucoup de mérite waroon toll ci dem ñaw li ji ca tailleur ya dem defari seen bopp wuti ca nu ñuy nu ñuy defaree seen njaboot mënuñoo génn mënuñoo dem mënuñoo dikk waa léegi lii ba kañ moo tax jàppeel toutes les femmes du Sénégal amul exception nag képp koo xam ne sentir nga jigéen rek ci biir war ngaa jéem a seet jàppale ñu ci lii seet ban solution lañ ciy trouver ndax lu war a jeex la nag ñu bokk ci dëkk boo xam ne dafa bokk ci les grandes démocraties le Sénégal mi ngi ratifié la la convention sur le droit des enfants le 31 juillet 1990 ça ne de pas d'aujourd'hui ñu jël suñu doom yi def leen ay bouclier ça trop mal mais qu'est-ce qui se passe war nañ wax lan moo xew ba xew nag léegi nag Sénégal dóor bal xew man balaa balaa laa daan dégg. mais léegi bal yi may dégg ñu koy wane ñu ne bal réel man dama tiit te yaakaar naa ne nag kuy jigéen fii tiit na ndax nag ëmb dafa metti wasin metti yar metti dem dikk rek ñu indi la niiw te xale yi dee presque ñëpp balu dënn balu bopp loolu lañu bëgg mu arrêté loolu lañu bëgg mu jeex xale yi ñuy def bouclier ñu arrêté ko ñu dindil ñu sunu euh, lee ñu tëjee sunu kër euh, euh, coordonne sunu leader Ousmane Sonko mu sell mi lom constant, l'homme véridique, l'homme qui n'a jamais corrompu quelqu'un, qui n'a jamais accepté d'être corrompu. jaar na impôt domaine 15 ans sans faute il y a deux personnes yoo xam ne rek mën naa leen citer Mbuub de CCBM nee na nit ku jub la mag yu fay ñëpp toog dañ mu ne Sénégal neexula waxee ndax télévision yaa ngi nii lépp ngi nii kenn ku ci nekk loo wax ñu ne wax na nangam waaye. le président Ousmane Sonko mii ku jub la ñu leen di xamal ne ñu ngi ànd ak moom depuis sept ans di xeex ak moom waaye lu mu ñu wax démb rek moom la ñu wax tey ñu koy ñaanal nag jàmm di ko ñaanal salaam di ñaan yàlla sunu doom yi ñu génne leen ci prison yi ñu dem tabaski ji prison du palaasu xale képp koo xamee ne élève nga nga jàngi ku am examen nga defi ko bouclier bi ñu arrêté ko ci xale yi xale yi mérité wuñu loolu juruñu ay doom pour ñu leen def bouclier beneen affaire bi am tamit ñu ngi lancé benn encouragement à une grande dame muy la maman de Ousmane Sonko la maman de Ousmane Sonko xam nga ne nekk ci télévision gis ñuy tëj sa sa sa oto doom gis ñu di ko sotti ay ndox di ko pëmte pëmte te bindiwoo encore ñi fa jot a dem yëpp dafa ne bàyyi na Ousmane ak yàlla. moo bu ñu Ousmane ne yàlla la gëm moom la wóolu dañuy xam ne da ko nàmp kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla gën a may xolu muñu ces braves yi nga xam ne seen papa daf leen a daf leen a seen jëkkër daf leen a gërëm bërki démba ne mësuñu ko ne mbuu mësuñu ko ko ñu ne ñu ngi leen di ñaanal yàlla di ñaanal Ami Dia di ñaanal Ndeye Khady njaay nekk xale nekk ci situation yu extremement difficile di ñaanal ki nga xam ne dafa bokk ci ñun muy Awa tey madame mag coordonnatrice Maggi Pastef Kër Massar moom mi tamit yóbbu añ dong ay prisonniers ñu ne ko rankum téye ma nga fa toog dañu bëgg li jeex dañu bëgg li féete boor moo tax j'appelle je fais un appel solennel à toutes les femmes du Sénégal amul exception nag kenn ku nekk nga dendal te mu wóor la mi ngi yëngu ci loo xam ne normalul mu fexe ba kooko mu wax ak moom alxuraan waxu yàlla ndax nit ki boo ko waxee dëgg bu ko nanguwul dans l'immédiat it laa nuit porte conseil bu yeewoo dina ne kii kat li mu wax dëgg la mu moytu ci loolu. pour récapituler ñu bëgg xale yi nekk ci prisonniers yi prison yi ñu bàyyi leen ñu ñibbi seeni kër sunu leader yi ñu jàpp ñu bàyyi leen ñu ñibbi seeni kër suñu leader bii nga xamee ne un homme d'état un homme crédible muy Ousmane Sonko tamit di Sénégal. sëñ Fallou Mbacké moo doon wax man may Sénégal mais Ousmane Sonko am na droit feelu ko ci ulay saw maamam mëgg dëkk Ndiayeen Pendaw ca Fuuta alaaji rawaan ngom di maamam ca Paal muy gànjul gànjul papaam dëkk ca euh, Arfan Bésir di maamam ca Ziguinchor moom la pont yi yaaxaloon tubaab yi mu tabax leen ba pare ñu ne ko looy loo loo ñu lay fay mu ne ba kenn fay dërëm nañu tabax école yi xale yi jàng kon Ousmane dafa donn li mu doon bii maamam dëkk Fuuta bii maamam dëkk raw Paal yaayam dëkk Kajoor kon alhamdulilahi rabbil alamin un bon sénégalais bu jub lii ñu ko teg na yi ñëpp ñu teggil ñu ko loolu daal lañuy ñaan moo ñu tax a jóg ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm nag di ko président fa nga ne ñu ngi sa gannaaw ñun sunu ànd ak yow dara mënu koo dindi li koy dindi yàlla yéex te bu mu doon ci sa côté yàlla yàlla sàmm la sàmm sa njaboot Sénégal daal yëngu dafa jot wax ak nit ñi jot moo tax te ñu jël suñu responsabilité wax ak peuple sénégalais bu kenn travestir réalité yi ñaari problème moo ñu yóbboon tribunal ñaari yooyu dindi nañu ci biñ ci yokk la ñu xamul fu ñu jógee moo tax ñu bëgg ñu dindi ko teg ko fee may ñu jàmm ak salaam ñu continuer sunu liggéey yal na yàlla def jàmm yal na yàlla yokk leen ba ngeen yëkku yal na yàlla may ñu ñu fekkee lépp ci barke yonent bi alayhi salaatu salaam